Seck bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo jiitee mbooloo mi nga xam ne ñoo génn fii tey seen kàddu man lañ ko jox ma leen di waxal li nga xam ne nag moo fi xew tey ku ne xam na ne dañoo am lu ñu métti parce que dëkk bu toll ne Touba ñu def fi benn canalisation boo xam si ci route nationale bi lañ ko def ba pare ñi nga xam ne ñoo ñoom bañ fa demee dañu yëguñ ko ñi nga xam ne ñooy la sous préfet bi nga xam ne moo fi njëkkoon a nekk biñ fa demee danañu moom yëgu ci dara te loolu dafa ñaaw ku ne xam ne ne ñaaw na dëkk bu toll ne Touba kenn waru fee def lu mel nii te ñoom ñu ne yëguñu ko ils ne sont pas au courant loolu tegul fenn jaaduwul li nga xam ne nag moo waral ñu génn fii tey dañoo am lu ñu metti li ñu metti ñu ngi ko am depuis bi ñu commencé liggéey fii ndax ku ne xam ne ndox mii nii di verse fii nii tali bii ni mu daan mel ak ndox jaaduwul léegi ndox mi daan verse fii yëpp essence bii nii day wàcc di dugg suñ koñ yi su ngeen paree mën nañ leen a ca koñ ba li nga xam ne moo ndox mi nga xam ne mooy dugg ci biir kër yi nit ñi ñi ngi commencé di génn te loolu dafa ñaaw ci dëkk bu toll ne Touba fi nga xam ne nag fi lañ war a dem dem nañ fa fépp fi nga xam ne fi lañ war a dem dem nañ fa ci dëkk bi lañ dëkk fi lañ juddoo yaroo fi màgge fi xam ne ñu dox ci dëkk bi ñu yëngu-yëngal ñu xeex du ñu taali pono ñu baare tali mais dañoo génn ngir lu ñu naqari ñu faj ko ni ñu ko bëgg a faje ñun waxuñu ak président xam nga lu tax waxuñu ak président président dafa am ñun teg ci dëkk bi te ñoom bi ñu demee ci ñoom dañu ñu ñoom ils ne pas au courant muy le maire bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ak le sous préfet bi fi njëkkoon a nekk le sous préfet bi nga xam ne moo fi nekk instant bi barki démb génn nañ fii nii moom mu recevoir ñu biñ ñu recevoir def nañu le plus urgent danañ ko dindi le plus urgent mooy ndox mi nga xam ne moo ne ci koñ yi danañ ko évacuer mu génn pour beneen ndox du ko fa fekk te ndox mi kenn dindiw ko parce que démb dafa taw dafa taw xam nga tey par exemple lii depuis trois mois ñu ngi koy kaas kilifa gi njëkk dem dañ nañu woon da ngeen di bàyyi ba màggalu Daaru Muxti gi jàll avant màggalu Daaru Muxti la kon loolu yàgg na yaa ngi dégg léegi tey li tax ñu génn fii nii te matul 72 heures mooy démb ba 3 heures du matin ñi ngi ci koñ bi ñi nga xamee ne dañuy génn ndox mi dafa nangu seen kër yi ba ñuy génn ñun ñi ngi woon ci koñ bi di leen jàppale looloo tax nag ñu xëy ne canal bi tey moom du fi fanaan soit ñoom nañ ñëw wax ci wala ñun dañ koy fàtt d'après les rumeurs nag maa ngi dégg ñu naan ñun dafa am ñu ñu dooleel wala dafa am ñu ne suñ ginnaaw ñun nous ne sommes pas des politiciens ñun politique wuñ ay jeunes la ñu nekk suñ koñ bëgg li nga xam ne mooy defar suñu koñ gis nga lii nii bu doon doonag lii nii dañuy xëy dem liggéey tey dañoo xëy dagg suñu liggéey ñëw fii ñun liggéey lañ xam suñu xëyee ci dëkk lañ nekk di liggéey bi ñu xëyee tey tey bi ñu bi ñu ñëwee démb ah woo nañ benn responsabilité boo xam si tey par exemple ah, ci kër sëñ Moussa Nawel la nekk mu nañu sëñ bi dafa fattu mu wax ñu deux choses nañu sëñ bi dafa fattu maanaam ñaar yi daf cee am mm. sëñ bi dafa fattu mm. te général yu mel ni ku koy wax boo ñëwee daf la yabal ci mairie. tey bi ñu xëyee. tey bi ñu xëyee dem nañ ci ay kilifa yoo xam si ay sëti Serigne Touba lañ mën a toog ci yoonu Serigne tubaa wi dem nañ ci ñoom wax leen li ñu naqari kenn ki bi ñu demee ci moom dañoo fekk biir këram moom mu bokk ci ñi nga xamee di ñàcc ndoxam di génne ci biti. mais xam nga dafa am lu logique logique bu àdduna ku ko xam ko ku ne xam ne dëkk bu toll ne Touba maire bi nekk fi ñu tekk ko fi bi duñ gas duñ gas route nationale bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi jaarale fi ay canal te ñoom duñ ko yëg keroog biñ fa demee sànq am na ku fi ñëw ne réunion biñ fi doon def pour ah, waa waa Aserut ak ñoom entreprise bi ko def réunion bi ñu doon def ak waa bi ñoom moom ma nga fa woon kon ñoom yëg nañ ko peut-être dañ ko yëg xam ne seen pouvoir yëgul fa mënuñ ci dara ñu maanu ci mais nag moom yëg nañ ko bu baax a baax a baax a baax yëg nañ ko ci reproché mooy liñ koy reproché mooy par exemple ñun ñun ay ay ay ay ay ay citoyen lañ ci dëkk bi lañ dëkk dañuy fay lépp loo xam si dafa war ci dëkk bi dañ koy def tey jii nii sëñ bi bu woote ab liggéey ñun ñi ñooy jug dem liggéeyu ko léegi nag léegi nag imagine vous imaginez vous nga jële ndox ci kaw tali tali route nationale nga jëlee fi am ndox yóbbu ko ci ay kër loolu lañ leen di reproché parce que dafa ñaaw dafa ñaaw ku ne xam ne ndox mi ni mu daan mel ci tali bi ndox mi dara ñëw ci tali bi fees si dell ba oto yi dañuy orienté wu pour jàll léegi nag imaginer na ndox moomu yëpp ci biir koñ yi la jëm dafa bari raison pour laquelle Touba tawagut bi mu commencé taw yàggul nit ñi commencé génn bu tawee fu ñu jëm fu ñu jëm ñun nous sommes pour tout lépp luñ ci mën a fekk rek d'accord nañ pour assumer suñu responsabilité parce que xamoo lu tax parce que xamoo bi ñuy jug bi ñuy jug juguñu rek ñëw taxaw fii nii nee naa la depuis trois mois mi ngi nii ñu ngi ciy dox di ci wax gis nga papier bii ma yor nii bii ma yor nii mbàkke mbàkke bii nga xam ne moo jàkkaarloog ah canal bii ni moo ko bindoon jox leen ko sëñ Alaaji Mbàkke moo ko bindoon jox leen ko signature beeg lépp a ngi ci depuis trois mois kenn répondre ko ci depuis trois mois date beeg yëpp mi kenn répondre ko ci lii dafa ñaaw raison pour laquelle ñun lépp luñ ci fekk rek d' accord nañu assumer suñu responsabilité mais liñ bëgg muy canal bi fatt moom dana fatt entreprise yi dafi ñëw war nañu fi indi loolu laa jàpp beneen bi ci des itam beneen bi ci des itam maa ngi leen di yëgal loo xam ne damaa bëgg ngeen déglu ko yéen ñëpp am na fi beneen société boo xam ne nii assainissement la war a def assainissement la war a def assainissement bi waa Touba moo ko moom bis bu ñu fi andiwaatee benn entreprise nii lay demee danañ ko defar dem ba pare duusi wëlbatiku di tuuti suñu kon lii jaaduwul tey jaaduwul ëllëg